jóge ba Thiès nekk jàngalekat di yarkat ci benn internat ak soxna Fatmata Lo nekk enseignante fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñoom ñaar nag ñu war a waxtaane respectivement euh, rôle et apport des femmes dans les daïra ak comment contribuer sans contraindre ni transgresser euh, xeetu thème yu mel nii nag mu ne su ko yëkkati te fàttali mu ñu ne jigéen mooy euh, xolu société jigéen mooy yaay jigéen mooy éducatrice jigéen mooy première école daayira nag bu ñu ko jëlee euh, dans son essence purement islamique ndax nag mu ne su ko tënk rek ci rassemblement wala entité mouride ngir weesu na foofu dafa am taarix bu yàgg euh, tukkee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy lenn ci méthode yi nga xamante ni nii jullit yi amoon nañu ko ngir di booloo ci seen biir di regroupé wu ngir dund diine ji di jangalante ngir fatalante ci jamono yoyu jamono di dox mu dem ba mel lu xaw far gay ba bes bi nga xamanteni ni suñu yaakaar di Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul yeesalat na yoon wi wote wote bu mag bob depuis jamono yoyu nak lañu ne daayira yi wat lañu dundu di évoluer évolution bi nak

di aussi cadre social et de professionnalisme mu mel ni rek lenn ni ci yooyu les euh, valeur ci daayira bu ñu ko jëlee bu ci nekk ne gis nañ ne soxna am na ci wàll bu ñu jëlee li nga xamante ne nii mooy valeur éducative ñu ko wax te ki nga xamante ne moom lañu naan première école teewul bu ñu jëlee cadre de stabilité mënuñu koo jël te yaay ki nga xamante ni mooy yaay mooy manager kër di manager société teewul waaye lenn ci nekk nag bu ñu ko ba bëgg a ci perspective yi du ñu wala ñu jàdd yoon ci li nga xamante ne nii la lislaam tënk koy bàyyi xel bu baax le respect des normes islamiques li nga xamante ne nii jigéen euh, lislaam na ko ak fi nga xamante ne fa la ko tënk loolu itam dañu koy bàyyi xel bu baax kon li def bi jox ki nga soxna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 Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul ñu ngi santaat yàlla bu baax ci boole gi nga xamante ni boole nanu ko ci ba daayira bi di sosu 91 mu may ñu ñu bokkoon ca ñu jëloon suñuy tànk di wër école arabe yi pour ñu taxawal mbooloo mi ñu liggéey Sëriñ Tuuba pour bu nu mayee ñu fekkewaat ba daayira bi ñu ne am na fanweeri at ñuy def waajtaayu mag sant Sëriñ Saaliw di raayu engrasi bi yëq na di màggalaale suñuy famille ak suñu borom boole ñu ca ñooñu doon joxe juróom juróom ya ba ñu dajale ko ba muy 55 mille ñu jox ko Serigne Saliou kon dañuy santaat suñu borom subhanahu wa taala bu baax fekke bi ñu may ñu fekke la te nangu ñu lépp lu ci liggéey waxtaanu tey wi nag day tem boo xamante ni muy taxawaayu jigéen ak jigéen بل تخواي لا مانا ام كي دائره اك نان لا ورا مانا جابلي دائره بي نده الاسلام ان الاسلام كرم المراه بما لم يحدث في الدين سواه لانها حد بلغت في الاسلام مكانه عاليه نده الاسلام teral gi nga xamanteni teral na ko jigéen amul ci benn diine boo xamanteni l'islam teral na jigéen noonu ci diine yu wees yi yépp benn musu cee ñëw amu ci ndax bu ñu delloo ci ginnaaw tuuti laata lislaam di ñëw yàgg nañ koo dégg jigéen ban place la amoon wala ban taxawaay la amoon ban wàccuwaay la amoon buñ ko bëggee xam dañuy dellu ci alquraanu karim ndax sunu borom subhanahu wa taala ñu koy nettali ci alquraanu karim wa iza bushira ahaduhum la unsa zalla wajhuhu muswadan wa huwa kadhimu yatawaara min alxawmi min suui ma busira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turaab ala saa ma yaxkumun sunu borom subhanahu wa mi ngi nettali ci alquraanul karim ni ku ci masaana am doom muy jigéen ñaar rek ngay xalaat damay gas ba mu xóot ma suul wala ndax damay dund moom ci gàcca boo gasee nga suul kooku moom bokkatul wala boo ko bàyyee mu dindi jigéen jooju day dund dund tumuraanke jigéen jooju du def du dindi jigéen jooju amul woon ci société bi benn taxawaay boo xamante ni tey diina ya weesu joxoon nañ ko lislaam wala ña weesu joxoon nañ ko jigéen kon tey bu jigéen nee am féex jigéen mën a bokk ci ay mbooloo jigéen tey mën a gàddu micro di wax ñu di ko déglu loolu nañ ko sant lislaam place bi nga xam ni moo ñu ko teg kenn teguñu ko fa woon avant lislaam di ñëw ci benn ci benn diine nag ba tey atte yi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala da teg ci góor teg ko ci jigéen ñoom ñaar ñoo ci yam benn atte li lislaam sant góor ci jaamu yàlla moom la sant ku jigéen ci ci jaamu yàlla lim ko dit ci fay moom la dikku góor gi ndax ñëw na ay yoon yoon ci alquranul karim sunu borom subhaanahu wa taala di ko di di ñu ko wax ci alquran man amila saalihan min zakari aw unsa wa huwa muminun falanuhyiyannahum hayaatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma na ya'maluna sunu borom subhaanahu wa taala nee na góor bu jëfee jëf ju baax cib jullit bu jëfee jëf ju baax moo xam góor la wala jigéen la nee bu ëllëgee dinaa ko fay waaye bu ëllëgee dinaa ko jaral kon atte yi lislaam teg góor ak jigéen ñoo ci yem képp li ñuy rawantee mooy kenn ku ne yaay def effort yaay pëseefu ba jigéen mën naa jaamu yàlla ba am martaba boo xamante ni góor amu ko waaye jigéen nit mën naa jàpp ni góor lañ ca jaamu yàlla góor ba raw ko fuuf kon góor jigéen bu farloo ci jaamu yàllaam mën naa dem ba sur góor kon ñoo ci yem képp ndax sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax ci alquraanul karim wa xamal naahum fil barri wal wa razaqnaahum min sunu borom subhaanahu wa taala dafa ni man suñu borom maa bind doomu aadama waaye maa teral doomu aadama tàggatal ko géej ak jéeri ji ba mu mën ci dund waaye ba mu mën cee wërsëg dund ci wërsëgam ci bu teey ci bu neex sunu borom subhaanahu wa taala kon moo teral doomu aadama ba doomu aadama bi mën a nekk ci kaw suuf di jariñoo li ci suuf si waaye ci ci jéeri ji waaye di jariñoo tamit di ci géej gi muy wërsëg boo xamante ni sunu boroom da ko ko wërsëgal ba pare na gënal ko bi mu bindee doomu aadama teral ko lépp lu sunu borom subhaanahu wa bind doomu aadama moo ko ci gënal moo ko ci loolu moom la gën a la gënal ci kaw mbindeefam yépp moo ko ci gënal kon euh, jigéen kon day membre boo xamante ni bu am solo lol ci société jigen membre la bo xamanteni ni kenn taxaway bi nga xamanteni amna ko ci société bi munta rer kenn umpul kenn ndax bepp mbolo bo xamanteni dem nga fa tay ji muy mo xam mbolom l'islam la wala tay benen mbolo jigen tay taxawé na fa taxaway bo xamanteni bu fess la waye bu am jariñ la waye bu dundal mbolo mi nga xamanteni mom la nek ndax avant loolu xam na la kullu sayin xiya al ummu wa hiya allati tanjibu wa bi kon njëkk laata loolu jigéen day ndey ndey la ba pare avant loolu yépp ku ne xam ne ni jigéen yaay la te yaay ku ne xam na am solo gi nga xamante ni am na ko solo lool ci njaboot bi ba bu ca manqué mën naa am loo xamante ni dina sooxe lool ca liggéey bi jigéen yarkat la day yar ba pare day dimbali day defar ay génération moo xam yu góor la wala moo xam tamit yu jigéen la kon jigéen taxawaay bi nga xamante ni moom am na ko yaakaar naa buñ ko doon lim tey jii dina xajul képp koo xamante yaa ngi gaawantu di njëkkante ngir jaamu yàlla te sàkk woo xam-xam xamoo lay farata xamoo lay sunna dof la boo xamante ni rek buy nelaw la bu yeewul kon ñaareelu taxawaay bi jigéen war a am ci daaira mooy mu sàkko xam-xam ba dem ak réer xam li nga xamante ni ndax daaira jaamu yàlla la te jaamu yàlla moom mënoo koo def te xamoo lan mooy farata yi wala xamoo lan mooy sunna yi mu ni njëkk laata ngay beru jóge fee rek nee na dem mbooloo commencé di woote di wuti bi te sàkk woo xam-xam nee na loolu doon na loo xamante ni day yàq kon xam-xam moo jiitu woote xam moo jiitu organiser daayira woote nit ñi ñëw ngay wut ay taalibe sëriñ bi nee na dem sàkku ji xam-xam mooy li nga xamante ni moo jiitu te moo jëkk ñetteel ba ñetteelu taxawaay bi jigéen war a am ci daayira mooy lan am teggin ndax teggin dafa doon lu sëriñ bi yitteel lool ci wooteem bi ba bind ci ay bayit yu baree baree baree bari te teggin nekk ci mbooloo te amoo fa teggin amoo ci teggin yàq mbooloo ndax boo génnee mën na loo mën ngaa def loo xamante ni dina tax ñu xeeb mbooloo ma wala di nga tax ñu doyadil mbooloo ma ba ku doon bindu si ca daayira ba nga bokk bu xoolee sa melokaan wala mu xool ci yow yaakaar naa du mën a egsi kon jigéen ku nekk moo war a am ay teggin rawatina jigéen kon ñu ko koy ndax daa doon yaay mooy des ci kër yi mooy dalal nit ñi mooy dalal gan ñi mooy yar njaboot ki te kersa ak teggin dina doon loo xamante ni day dimbali nit ki ndax sëriñ bi mu ngi ni fa kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatun ilal aza bi xam lu mu bari loolu te àndut ak teggin nee na day du xëcc jëmale fu dul ak coono rek ak moom rek nga ci mën a am kon teggin loo xamante ni nee na moo gën ci àdduna ak alaaxira kopporfor bi nit ki mën a fàggu ci àddunaam ak alaaxira nee na mooy teggin teg mooy kopporfor bi gën ci ñaari kër yi muy teggin te moo gën tamit li nit ki di mën a waaje ci boppam bu amul teggin du mën a dem kon ñeenteelu point bi nga xamante ni nit ki war na ko soxna si war na koo taxawee jàppalee ko mbooloo ma mu bokk dundale ko ko mu doom ku yaru lool waaye ku dal lool ku am ay teggin lool bi ci des mooy bu ja bu jàngee nag ba am xam-xam la war a taxawaay bi mu war a amaat ci biir mbooloo mi mi mu bokk mooy mu jàngal leen fal mar'at tu an tuallima xayriha umuru diini mina taalimi sayhil wa ahkaami diini wa xayriha mu ni war naa am taxawaay boo xamante ni day jàppale mbooloo ma bokk seet képp koo xam ne jàngu ca woon mu jéem koo jàngal ba mu fer it ji ci njàngaleem sëriñ tuubaa jàngal ko ci jaamu am nan lay def ba jaamu yàlla dafa bokk ci liy dundal daayira bokk ci taxawaay yi nga xam ni soxna si nekk ci daayira bi te suñu boroom def mu fer iji mën a fexe ñeneen fer iji ba mën a durus ci xasiday Serigne Touba yi daf cee bokk pour mu jàngale jàppale ko mbooloo ma ndax wa kaana ashaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yasaluuna aisata umul muminina radiallahu anha amma askala alayhim mu ni ndax saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen la woon waaye yonent bi sallallahu alayhi koo joxoon ñoon ni leen ba ne daa wax naa leen xuzu nisfa diinikum an hazihi umayra dee leen jël seen gen wàll diine ci soxna su xonq si te booba Aysa tey saxaaba ji ci yonent bi sallallahu alayhi wa doon jublu ba ñoom dañu doon ñëw ci saydatuna Aysa di ko laaj li leen lënt li leen leerul ci seen diine lépp loo xamante ni ab àtte la ci lislaam te leeru leen ci seen diine ñoom dañ daan ñëw di ko laaj sayyidatuna Aïcha ba wax nañ ni li ki ëpp ci li mu soloo ci hadis yenam sallallahu alayhi wa sallam Aïcha Aïcha la ndax ba ku ñuy wax Zuhri yi mu ngi wax ni law jumia ilma Aïchati ila al ilmi jamii nisaai la kaana ilma Aïchati afdal nee na mbooleem soxna yi képp kuy jigéen ko am xam-xam nekk ci àddina boo leen dajale woon xam-xamu Aïcha kawe na lool seen xam seen xam-xam kon jigéen taxawaay bi mu mën a jàppalee mbooloo ma mu bokk wala société bi l'islam mbooleem jigéen bi nekk ci di dund la nga mën a jàppalee sa moroom mooy fexe nga deñ ak réer jàng ndax boo jàngee dina la dimbali ci lu bari ba lépp luy lu ñuy jaayre tey ci àddina ku ne di ko métit lu ci taxawaay bi nga xamante ni en am na ci yenn ci soxna yi yu ñu taxawee li ko waral li ci ëpp mooy ñàkk jàng ba xam li leen suñu borom subhanahu wa taala digal ci seen diine ndax dimbali googu nga xam ne mi ngi koy dimbali jigéen ñi ci see ci xam-xam Serigne Touba Xaadim Rasoul digle na ko sunu borom it digle ko ci alquranu karim wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan dee leen dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla te bañ di jàppalante ci bàkkaar akub noonu mooy yàlla kon boo bokkee ci mbooloo mi war ngaa xool képp koo xam ni tegewul ci aw yoon nga jéem a waxtaan ak moom jéem koo delloo siwaat bu dee mën nga ca dara ba mu ñëw tënku ci ni mbooloo ma bëgg te nag bañ a jàppan di ko dimbali ci lépp loo xamante ni day waral lu naqarib suñu borom subhaanahu wa taala la kon lu nu war a moyuloo taxawaay boobu tamit jigéen soxna si bokk daayira war na ko jàppalee daayira ba bokk waaye war na ko ci dimbali ndax yonent bi dafa wax ni man lam yaxtam bi amril muslimina fa laysa minhum képp koo xamante ni yitte woo mbiri julli ñu du sa yitte jéemoo xool li julli di yitte woo nga jéem ca jéem leen caa jàppale jël sa yittey moroom muy sa yitte nga taxawu ko nee képp koo xamante ni day defoo ko bokkoo ci man te kon jàppale ci daayira ba nga bokk ci lu baax jàngal leen ba ñu deñu réer lu am solo la ci luy dundal mbooloo juróom-benneel ba mooy soxna si war naa doon koo xamante ni exemplaire lay doon dañuy roy ci moom di xool doxalin bi nga xamante ni moom la nekk ci biir daa daayira bi mu ñu roy ko ci moom waaye ba mun war naa doon koo xamante ni nag ku roy soxna jaara lay doon moom mi ñuy roy bala ñu koo roy na doon koo xamante ni day jéem a melowoo ni soxna jaara bu sa mel te melakaanu soxna jaara yaakaar naa duñu ci sonn dañuy dem ci bindum sëriñ Mouhamadul Basir ci minanu baaxil xadim nettali nanu soxna jaara ban melokaan la melo waaye ban jikko la amee woon waaye soxna jaara nan la daan dundee ndax sëriñ Basiru mi ngi ñu ci nettali pour ñu man koo roy ba mën koo dundee ci mbooloo yi wa kaanatil waalidatu jaaratullaahi mariama buso saalihatun nee na soxna jaara ku sell la woon afifatun ku oyof toll la woon waaye dayinatun ku amoon diine lool kasiratu salaati wa sawmi ku bari lum daan julli lool di ko woor lool bari lu muy saraxe waaye nag jël léppam wékk sunu borom subhaanahu wa doyloo yàlla ci léppam kon jikko yii moom la soxna jaara jikkoo woon kon ñun ñi nga xam ni dañuy liggéeyal Serigne Touba te bëgg a jàppale daayira yi ñu bokk kon waruñoo jël misaal yi ci soxna jaara jéem koo jikkowoo ba man cee jéem a defar ñeneen ñi nga xamante ni doonoo taxaw pour yar leen waaye soxna jaara tamit soxna si nga xam tamit bokk na ci daayira ba am taxawaay bu mu bëgg taxawee ko ca war na doon koo xamante tamit ku am digalul borom këram lay doon ci lépp loo xamante ni da koy def rawatina bu bëggee bind ci mbooloo faaw nag mu am ndigalul borom këram ba bu ko ca amee mën naa bokk ca mbooloo ma bépp poste boo xamante ni jox nañ ko ko pour mu taxawee ko liggéeyal ca lislaam bu amee ndigalul borom këram mën na koo jël waaye bu fekkee tamit nag li muy baax baax amu ca ndigalul borom këram war na koo mën a gàntal ndax Serigne Touba kat mi ñuy wax ni. ولا ترومي طاعة الله بلا طاعة زوجك التقيز الغلام بول ساكو غرمول يالا لودول داغا بول ساكو توب يالا تي لودول داغا توب سا بوروم كير واي بان بوروم كير لا ني توب التقي موي بوروم كير بيغا خامتاني راغال نا يالا داخ دولا ديغال لولا يالا تيري waye dula tere bu la suñu borom subhanahu wa ta'ala digal kon soxna si nga xamanteni bokku na ci taxawaye te bàyyi tere te sukkandiku jël jikkoy soxna jaara jikko woo ko ba mën a taxaw ci mbooloo bi nga xamante ni moom la bokk bokk na li jàppale mbooloo ma waaye bokk na ci li dundal mbooloo ma ndax sëriñ ba si nee na so ci dégg rek sa ndigalul borom kër nee na misaal la rek ci soxna jaara doy na ci sëkk ndax moom kat xaa imatun bi waajibaati diinihaa la baynahaa wa bayna rabbihaa soxna jaara bu taxawoon la ci digal ci waaj ci warugar yi nga xamante ni moo ko war ci diggante moom ak boroomam matale woon na ko sëkk lool waaye yàqalu ko woon dara ci li nga xamante ni ak yi war ci diggante moom ak Mamor Anta Sali nee na ko ca taxew la ba mu mat sëkk kon liggéey sa jaamu yàlla nee na sa jot bu mu xam sa ñàkk jot bu mu xam sa jaamu yàlla kon taxawaay yi nga xam ni daal bokk na ci jigéen pour mu taxawe ko ci jàppale mbooloo bi nga xamante ni da cay liggéey dara jiituwu ca tamit nag même bu fekkee tey ji am na ca solo lool yor na ca poste boo xamante ni mën na ca góor ñaar du tee nag nga topp ca ginnaaw góor ña dégg ndigal ya ndax sunu borom moo digal moo digal loolu moo jël góor ñi jiital leen ar rijaalu xawwaamuuna ala nisaa jigéen góor mooy kilifa jigéen bu demee ba nga xamante ni nag d'accord na ca ak ñoom bu boobaa na doon loo xamante ni dina ko mën a taxawee waaye lépp lu ca bëgg a liggéey na topp ca ginnaaw góor ña kon bu fekkee jigéen tamit bëgg naa jouer rolam ci biir société bi waaye ci biir daaira bi nga xamante ni bokk na ca nee na mënul dem mënta nekk ci lu dul dafa delluwaat rek ci soxna jaara xool melokaan bi nga xamante ni moom la mel woon ndax dina xemmam loo koo xamante ni bëgg naa tàbbi ca booru biir mbooloon waaye bokk ci daaira di liggéeyal Serigne Touba ba pare mel ne neen am beneen comportement lu ñuy joxe yaa cay jëkk njëkku koo joxe te nag na sëriñ bi bëgg dëgg dëgg dëgg ñu mel ko taxawe woo ko ca biir mbooloo ma loolu day waral xeebug mbooloo kon jigéen daal yaakaar naa bu xamee boppam li ko war mënta mënuñu koo jàllale ci 15 minutes dina ci tuuti lool ndax jigéen moo mën a defar àddina moo mën a defar alaaxiraam euh, ndax benn góor bu doy waar benn jigéen bu doy waar mën naa yàq téeméeri góor kon jigéen li ko war mooy rek mu xoolaat boppam xool foofu. nee na soxna Diarra moo ko ni génne ni ko Ahmadou demal liggéey ñi di dañ lay yàqal ñu xool tamit kenn tamit koo xamante ni. sunu sopp la lool ci suñu xol te xëy na gisuñu ko waaye histoire am lañ dégg muy soxna Faati Issa Diop Serigne Moustapha Sall di wax ni bu moom ki gën a gëm Serigne Touba soxna Faati Issa Diop moom bu ñu ko doon laaj day wax ni moom ndax ku ne xam na liggéey bi fi mu toll woon ba mel ni lu jaxasoo maam Cerno mi ko sëñ bu mag bi dénkoon dénk ko njaboot gi am na diggante boo xamante ni maam Cerno jaxasoo woon na fa lool kan moo ko delloo siwaat kan moo tegaat yoon wi kan la kooku jigéen la ñu koy wax soxna Faati Isa Jóob moo ko ni de kon yow dese ngaa xam sa mag ju baax ja ndax nee na ma woon gis bu ma faatoo moo may nangu ci bàmmeel te maa ngi nii faatooguma kon loolu tubaab bi wax ay neen la ci nii sëñ bu mag bi jóge na fi déedéet demal ci sab liggéey kon kan moo indiwaat maam na ba mu tegewaat tey jii muy waajuram jigéen la kooku xam na role bi nga xamante ni réer na ci lislaam lu am solo rawatina yoonu murit kon ñun jigéen ñi daal yaakaar naa war nanoo amaat taxawaay bu am solo lool ñoo ngi jéggul bu baax di jox soxna si kàddu gi ba ci kanam incha